am itam lu ñuy tuddee cabinet spécial pour le guide de la révolution pacifique composé de trois cent treize membres waaw fi ñu toll yooyu mooy waaj a xew di ko diriger loo Samba Kara Ndiaye Pesca bu ko defee bu ñu bi ci kanam tuuti la ma waxoon ca gannaaw la ma waxoon Idrissa Seck ni ko jamono ngi ñëw ca kanam spirituel ak temporel bu dee téléviseur ak magnétoscope ñaari télécommande yëpp doomu Cees a ko yor loolu laa ko mos a wax ba temporel bi mu jiñoon ko boppam jamono yi weesu luy toll ci ñaari weer ma ne nag ñaari télécommande yëpp dama koy far téel sama bopp loolu laa wax moo tax lu 11 novembre bii di ñëw te waa Asabul Janna war ko organiser journée nationale à Thiès te ngeen ko war ko waajal yéen ñëpp waa Asabul Janna yi douze mille membres lañu yoo xamante ni bi ay professeur ak i enseignant ak ay étudiants yoo xamante ni bi ku ci gën a néew di néew diplôme am nga bac étudiants yi ñoo ñoo ko seq à travers le pays fu nekk am nañ fay cellule ñoom ñu ne woon man lañ bëgg ma doon seen yi ma leen tuddee asabul jànn ma yebal leen ci sëñ Mountakha ñu dem fa wax ko ko mu ànd ci ak ñoom rafetlu ko ñoo ñooy organiser ren retour ku tedd kii exil le 11 novembre à Thiès waaw incha allah ñëpp war koo teewe mu war a nekk journée nationale bu ñu ci jógee nag ba administration bi may taxaw lu taxaw ba ni ñu ko war a organiser ñu organiser ko ni bu ko defee la ca kanam mooy proposer ñi fi nekk di jiite ngóor gi idéologie bu bees tàq boo xam ne référence yi Matlabul Fawzayni lay doon ko defee li ñuy tuddee socialisme mbaa libéralisme mbaa communisme et cetera idéologie yooyu ñu delloo leen ko xam ne am nan boo xamante ni bii da nga ciy defaru àdduna defaru ci àllaaxira ndax borom moo ne amara ni rab yi bi an usarriha bi na ni malazun wa mafsahum fa man araada alxayra fi kilta yi daare ni fal yalus bii loolu waxi ko tedd ku mel noonu nag duñ ko am ba noppi te mu waxoon ñu bu yàgg mais xadd fakk kabala xadd ba fadd la fa zurru wala wa naf mu jaay ba mu ko ba mu ko waxee dafa yàgg ah, ba mu ko waxee dafa yàgg